diggante tasawuf ak li nga xam mooy islaam ndax benn la ak bu ñu nekkee benn naka la ñuy xàmmantee ñoom ñaar ba mën a xam ne ñoom ñaar benn la incha allah. Euh, l'islam. Mhm. moom yàlla moom la indi. Mhm. jox ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. léegi tasawuf. l'islam bi ñu wàccee. pratique bi. loolu mooy tasawuf. yaa ngi dégg lislaam l'islam euh, bi nga xamee ne yàlla wàccee jox na ko yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon benn benn benn kalima boo xam ne hmm. mooy kalimatul xaq hmm. mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu rek la ko yàlla yónnee jox hmm. amul leneen lu yàlla jox yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa loolu moo nekkoon islam dëgg la te loolu ba léegi mooy islaam dëgg la yaa ngi dégg léegi nag tasawuf loolu tey soo waxee sunna ah waaw soo waxee sunna loolu boo demee ca tasawuf ca làkk ba au lieu ñu wax sunna ñoom tasawuf la ñuy wax moom laay wax ma ne démb si suñu waxtaan bi waaw ma ne làkk tas tasawuf seen làkk bi waaw yow boo nekkee ci bokkee ci ahlu sunna nga ne ñii waa tasawuf lañ mu mu tasafi mu tasawif fóone yi la ñoom bokkuñ ci euh, ahlu sunna mhm. parce que ñoom dañoo gëm dañoo gëm tasawuf mhm. moo tax bokkuñ ci lislaam waaw royuñ yonent bi liñ am dañ koo sosal seen bopp mhm. fekk yow dangaa ngaa xamul taarixu islaam dëgg la xaqiqa bi moom nga xamul ak maanaaw taarixu islaam boo xamee xaqiqa euh, euh, taarixu islaam nga xam maanaawu taarix al islam mhm. bu boobaa di nga xam ne tasawuf mhm. baat bi moo soppeeku waaye melaw yi soppeeku wut wut dëgg la ndax cosaanu mbir yi mhm. balaa ñuy indi ay arkaan yi nga xam ne mooy wàllu arkaan islaam yi dafa am ponk bu njëkk ñu ñëw ponk boobu bi mu ndikkee dafa am ci ay base yu mu dikkee woon ay base dafa amoon dafa am base de données xam nga tey boo bëggee ci internet bi dañu lay wax demal ci base de données nag waaw léegi nag base de données wu islam. Mhm. mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah. sallallahu alayhi foofa. Mhm. amul benn taawilaat bu fa ne. dëgg la. maanaa ñoom li ñuy xëccoo. Mhm. maanaam li gën a am solo. dañ ko fay bàyyi. dem ca la gën a ñàkk solo di ko xëccoo mooy fi waa ji waxee woon keroog suñu live bi. waaw ne ma eh, yow da nga bëgg a wér di seexu seexu tijaan. waaw ndax seexu tijaan da doon julli di yor ay loxoom. waaw. nga ne Baye Niass daf doon jullit yor ay loxom ci njëlbeen gi gannaaw ko bu mujj di yor julli di. di aj ay loxom waaw kon yow da bëgg a wér di seexu te am rek déedéet. Mm-hmm. julli sa loxo. Mm-hmm. julli yor sa loxo. Mm-hmm. maanaam defarut julli yàqut julli. déedéet dëgg la julli ci jëmmi boppam. defarut islam yàqut islam. yàqut islam dëgg la. yaa yaa dégg <laughs> léegi nag boo ko waxee ci ko koo xam ne. waaw déggam soriwut. waaw daf naan la hadis bi yonent saa salaam wax. waaw ne ku màbb julli màbb nga diine ji moo koy def uh-huh. léegi nag moom boo xamee uh, as boo xamee maanaam usulu islam islam uh-huh. bu fekkee yàlla mën na ko tawfiq mu xam usulu islam uh-huh. dina dégg fan ngay waxee yow dëgg la dana xam ne yow ci usulu islam ngay waxee waaye waxee yow ci ci uh, ci mantixu islam mantixu islam bi ndax xel mayewut nit di yàq di di ñàkk julli. man tax mayewul loo ci islam. déedéet mais usul may na la ndax usulu islam julli bokk ci woon. dëgg la waaw waaw buñ delloo cosaan yi de moom julli bokk julli bokk ci woon kon soo ne ko julli amut solo ci yëf yi. yow yaa ngi usul islam. ne ko léegi bu fekkoon doon naafiq amut. waaw julli du am. kon bu ñu demee bay julli loxo di teg ci loxo ci dënn. waaw di teg loxo ci weren eh, di yor loxo. waaw imaam Malik moo ko indi su imaam Malik ñëwutoon. loolu du am te imaam Malik diine ji ñëw na ba mat. waaw loolu dikkut. waaw waaw dëgg la de. ixtilaaf boobu amutoon ci avant imaam Malik yëpp. déedéet ci imaam Malik la commencé. dëgg la léegi kon da ngay xam kon léegi usulu islam dafa am solo nit ki xam ko. dëgg la. cey waaw imaam Malik de loolu xewutoon ci avant moom de loolu xewutoon. jeex na léegi nag soo xamee usulu islam. waaw léegi am na werante yoo xam ne bu ko nit ki di werante. waaw da ngay xam ne kii comprendre xamul lu xew. Hmm. léegi yow jul julli ci boppam waaw buñ ko ihraabee ba mu jeex waax jul teg ca loxo te teg loxo waaw yor sa loxo ko ca limaale ci farata yaa farata yaa sunna ko ca tudd léegi loo xam ne duñ ca tudd farata bu farata jëlee duñ ko ci tudd su sunna jëlee duñ ko ci tudd yow alal loo ca taxawee ba mu lay yàqal ba mu lay indil ba mu lay ak noonu ak sa mbokkam julli mbokkam julli réeroo de waru caa am waru caa am dëgg la de dégg nga wax ji dëgg kon dafa am lu ñu jar a werante ak loo xam ne kenn waru caa werante dalay neex nga def ko neexul la nga def leneen la la neex nga continuer hmm. jàmm na ñooy. dëgg la dégg ko. waaw léegi nag islam bi si feti xama hmm. l'islam ci boppam. Hmm. tasawuf dafa am nu ñuy pratiquer islam. te royee wuñ ko ci lu dul yonent saa salaam. sallallahu alayhi dëgg la. yaa ngi dégg. waaw léegi yonent saa salaam jàng nañ ci hadis. soo demee ci ar arbaayana hadis. waaw da ko fa fekk. Seydina Omar ci boppam. moo nettali hadis ji. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo wax ne waaw ba yonent si naa war mu ne am na benn bés uh-huh. toog nañ ak ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam uh-huh. biñ toogee uh-huh. ñu gis benn waay ñëw ci jotaay bi sol yëre yu weex ma nga taaru ma nga rafet ma nga set sell doo ko xool mukk ba ne kii ku duggee ci am tukki la ñëw ci ñun dafa mel ni ku ku làqarti koo ci euh, euh, ci miir bi rek waaw jox jox ci seen jotaay bi ñu gis ko ma nga toog waaw toogaay bu teggeenu bu rafet mm-hmm. jël bati óomam yi sëkk ko ci bati óomi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. bati óomi yu tedd yooyu la ko sax laaj yonent saa salaam ne ko damaa bëgg nga wax ma luy islaam mm-hmm. yonent ne ko islaam commencé ak au lieu xam nga lislaam boo demee ci boo doon la see Ibrahim waaw utal na ko ay manazil waaw yonent moo njëkk indi manazil yi manazilu islam waaw mooy laa ilaaha illa Muhammadu rasulullaah iqaami salaat itaay zakat samu ramadana hajjul baytillahil haram juróomi manazil la am soo demee ci Mawlana Cheikh Ibrahim waaw tawbatu istiqaamatu taqwa la ko utale la ko indi la ay manazilam allahu akbar lii lii du tasawuf bu rëy bu mat sëkk sax waa tasawuf lii la ñu dund lii moom ko njëkkee soo demee ci iman waaw ba mu ko ba mu ko laajee ah sama ba mbiri iman waaw daf na ko an taabudullah waaw wa an tuminu billahi an tuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi wa rusulihi wa wa uh, wa qadrihi wa qadrihi sarrihi wa xayrihi waaw yaa ngi dégg waaw kon doxaatal ko foofu ay manazil yu leer nañ ci liimaan waaw soo demee ci bàyyi nas waaw ma ngi manazilu liimaan waaw na na sitku ixlaaq taw ak tumaninatu tumaninatu problème bi amul benn problème leer na de ñaar ko ba mu ko laajee ne ko luy lislaam mu ne waxu ko loolu da ko da ko faram-fàccee yooyu nag. moom la waa tasawuf di jël di ko faram-fàccee waat pour nit ñi gën koo dégg. gën koo hmm. maa ngi dégg loolu moo tax na boo ne islam. ndax tasawuf mooy islaam waaw benn la wala du benn dama lay wax anaam ah, tasawuf ak islaam benn la amul ci jug jik jëfin ba. ca taarix ba